salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ni topp ci internet bi rawatina ci sen muy Seen Jili TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di baal xaq ñu ngi leen koy baalu ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak tawfiq ak na ñu ngi koy sàkku ci yéen yi tey dañoo dikk ak yéen gént waaye ba ñoo ñëw bala ñoo ñëw ak ci gént kaso wala prison xam ngeen ne bokk na ci barab yi nga xam ne as gor da koy foñ tontu léeg-léeg ñu dugal ci asgor tooñ ko dugal ko ci wala boog muy nattu borom bi subhaanahu wa taala wala sax léeg-léeg moom ci boppam mu def luñ ko fa tàbbale yooyu yëpp des na fa demee kaso waaye lu ci mën a doon rek mel na ne ak raxas la ci ay bàkkaar xam ngeen ne kaso du dara lu dut te nit ki fi barab ngir xañ ko liberté am bi mu daan am ci ndoxi soxlaam ak ku mu bëgg jëflanteel jëflanteeg moom nga xañ ko liberté boobu moo tax booy xool ci taariix ba ci histoire lu yàgg yàgg mënee suñu laa wax prison kañ lañ ko tàmbali wala kan moo ko njëkk sos ndax booy xool nañ sax yàgg na ba fan bañ far ko tudd ci alxuraanu karim di junju maana kaso yonent yàlla yusuf alayhi salaam ci xew-xewam booba xewoon digganteem ak soxna yooyu noonu lañ ko tuddee it boo demee ci euh, tooraat ak évangile wala sax ci ancien testament yooyu yëpp mbiri kaso tudd nañ ko fa kon kaso mooy jël liberté doomu aadama bi euh, tënk ko ci fi barab benn mu bàyyi ko ci atte muñ ko atte wala décision yoo xam ne ay kilifa ñoo ko décidé wala sax ngir ñu def ko ngir mbugal nit ki ci maanaam jumte lum def ci yu fànn yu baree baree bari kaso nag moom ci jëmmi boppam iqaam la maanaam punition la nga jël nit ki dugal ko kaso rek loolu punition la waaye ci biir kaso bi nga bëgg bëgg koo tegal yeneen punition moom loolu lu doy waar te ñu bare bare ñu ngi koy dund te prisonnier bu nekk am na ay xuquqam am na ay droit am yoo xam ne ah, war nañ ko koo sàmmal donte amatul liberté waaye teewul am na ay ay droit yoo xam ne moom ci boppam am na ko te droit yooyu droit naturel la ñu tudd ko xuququl insaan benn nga bañ koo xañ lu ñuy tudde karaamaam boo xam ne comme doomu aadama maanaam xañ nit ki karaamaam mooy di ko toroxal wala di ko mettital ak yu mel noonu te yooyu bare na ci kaso yoo xam ne am na ci te loolu bokkul ak kaso kaso moom moo boo jëlee nit ki dugal ko ci kaso rek loolu rek doy na punition yooyu yëpp nag ay xoqoon la yoo xam ne yu ñu war a sàmm la euh, diineem ak niteem ak dundinam yooyu yëpp kuñ dugal kaso am na ay droit yoo xam ne am na ko te war nañ ko ko sàmmal bu baax a baax bu dee fii nag ci senegal nga xam ne ministère de la justice tëral na ko ay yoon bu demee ci accueil niñ ko war a teeroo lañ ca def moom lu am solo la bu fekkoon ne doon nañ sàmm lépp boo demoon ca détention bi it maanaam fañ koy téye nii wala fañ àtte ba tëj ko fa moom it eh, yañ fa def ci sarta yañ fa def ak lañ koy toppatoo moom yu am solo la bu fekkoon ne danañ matal yëpp ak li gën a am solo mooy réinsertion réinsertion mooy fexe ba dugalaat ko ci société bi nga xam ne ba amatoon métier ñu fexe yow jàngal ko métier mu jàngutoon ñu fexe bañ jàngal ko mu fekkoon ne nit la ko xam ne ku jubadi la ñu fexe ba mu jub loolu mooy réinsertion to loolu yaakaar naa moo ëpp solo delloowaan nit ki ci société bi mu bokkaat ci société bi yaakaar naa loolu sax moo war a nekk njëriñal kaso ah, am na nag ay type d'établissement pénitentiaire yu bare bare am na ci yoo xam ne maison d'arrêt la am na ci loo xam ne prison la su dee maison d'arrêt mooy fu mel ne Rebeuss nga xam ne euh, dañ fa téye ni ay nit yoo xam ne seeni dossier pareegul wala atteeguñ leen wala bokk seeni mbir jeexagul nga xam ne ñoo nekk ci enquête ay waxtu ñu demee ba atte leen ba nga xam ne léegi seeni mbir jeex na ñu soog leen a transféré ci yeneen établissement yoo xam ne mooy lieu de détention moo tax sax léeg-léeg Rebeuss nit ñi dafa dund dund mu méttee métti ci xataay beeg. ak yu mel noonu te loolu gouvernement bi lu mu war a jël ay matuwaay la ba ubbi ah, yeneen yeneen maison d'arrêt yu baree bari yoo xam ne da koy defar defar boo xam ne defar bu am solo lay doon nga xam nit ki dana danañ ci mën a sàmm karaamaam ak dignitéem ak wax dëgg yàlla ak potentialité am mu xam ne en tant que doomu aadama la ba léegi bu duggee kaso it am na lum dese ci ci ci ngorom. bu dee ci jamonoy lislaam nag ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne booba xaj na jullit ñi bareeguñ ah, lool lool lool xam ne ñu ngi doon dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xaj na yenn problème du taxu ko woon bari lool lool lool te masaayil yu baree bari bu masaane dikk wala yenn jafe-jafe yi dañ dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn mu atte ko fi saase ki juum ñu ne ko yaa juum lañ ko war a teg ñu teg ko ki am dëgg ñu jox ko dëggam ak ñu daal di ak yu mel noonu nga xam ne jox euh, booba aaji wutoon ñuy téye nit ki fi barab lu yàgg-yàgg bu fekkoon na sax laaj na ñu téye nit téye nit ki ci nga xam ne ay bis wala ñaari bis wala ñetti bis lay doon wala juróom-benn su boobaa moom daanañ ko téye ci biir jàkk ji jàkk yonent bi sallallahu alayhi daa mu daa ko booleeg ab ab lim ci juli ñi ñu koy xool loolu lañ tuddee alxabs comme ku mel ne abu lubaaba mas nañ ko téye ci ah, ci jàkka yonent bi sallallahu wala boog ñi nga xam ne dañ daa daw xare wala sax ñi nga xam ne dañ daa jëflante ak yonent bi ci ay war comme lu mel ne bani xurayza ak yu mel noonu mel ñoom it nañ la téye fi barab ay fan wala boog ñu defal leen ay xayma te leen fa am ñu leen di xool bañ lijjanti leen ginnaaw bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ko nag ah, abu bakrin siddiq radiallahu anhu ñëw ci jamonoom nag lislaam tàmbule ubbeeku mbooloo mu bare bare du bàyyi fu nekk ñuy ubbi dawlal islaam ci ci aalam bi ñu bare bare ci di tàbbi dugg ci lislaam xam nga mbooloo mi lim gën a bari nag jubadi yi di gën a bari njuumte yi di gën a bari ñu xool na nag léegi war nañu ubbi barab boo xam ne spécial pour di fa téye ñi nga xam ne ñoo ñoo nañ fa war a téye wax nañ ne mooy ki ko njëkk ubbi barab boo xam ne dañ koy jagleel rek ñi nga xam ne dañ leen fa war a denc ñu tuddee ko kaso am na nag ñu ne déedéet ci jamono Eh, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ndax moo njëkk a jënd ak kër jagleel ko muy kër goo xam ne kaso la spécial wut fa ñu fa garde waaye ginnaaw loolu nag ñu dikkaat ci seen ginnaaw gën na gën nañ koo yaatal gën nañ ko structuré kon man nga ne kaso lu yàgg la waaye nag foo tudde kaso sa xel dana dem ci histoire bu yéeme ne yéeme comme ni nga koy déggee ñaar fukki at yi ginnaaw diggante Iraq ak États-Unis li ñuy tudde sijin Abu Ghraib mooy kaso Abu Ghraib nekk nekkoon ca Iraq nga xam ne mu'taqilil harb prisonnier de guerre lañ fa daan dugal dafa américains yi daan fa dugal di leen bugal mbugal yu métte métte métti ci façon bugal mu baree bari nga xam ne journaliste si dañ ko mujj génne muy lu doy waar ci àdduna bi ak Guantanamo nga xam ne moom it kaso spécial na boo xam ne dañ koo jagleloon nee na ñi nga xam ne dañ leen a jàpp ay terroriste moom it muy kaso yu métti métti yoo xam ne daanaka yow rabu àll sax moo lay ëpp dignité loolu nag muy lu ñaaw a ñaaw loo xam ne ba léegi àdduna bi duñu ko fàtte yu mel noonu nag lu bari la ci dëkk yi nga xam ne ay dictateur ñoo nekk di ko jëflanteeg ak seeni opposant ñoom daanaka karaama doomu aadama ñoom duñ ko duñ buñ ko buñ ko tiyaan loolu seetlu lañ ko ci suñ mbokk yi nga xam ne ay immigré lañ te ñaara ñu koy jaare ci Libi wala Tunisie wala Maroc ci dëkk naar yooyu ñoom it wax dëgg yàlla ñu doy waar lañ jëflante bu métte métti la ñuy jëflante moom di leen tëj ci barab yoo xam ne daanaka ay esclave lañ leen def te loolu lu doy waar la wanta dox diggante jullit ak moroomam waaye mel na ne ñoom sax ci wàllu woowu tubaab yi ñoo leen gën a respecté ñoo leen ëpp yërmande ci ci nit ñoom naar yi kaso nag am na ci kaso yoo xam ne yu yu yu yu yu am solo la nga xam ne bokk na ci kaso yi gën a respecté xuququl insaan maanaam dignité doomu aadama bi bokk na ci kaso yooyu kaso bu ñuy wax xaldan nekk fala ci Norvège nga xam ne biñ koy tabax lañ ci def mat na deux cent cinquante deux million de dollars loolu nga xam ne boo koy xayma ay milliards yu bari la ci CFA te moom kat deux cent cinquante prisonniers képp lay jël nga xam ne mooy prison bo ëpp ci Norvège nga xam ne seen buur bi ku ñuy wax Halden moo ko moo ko moo tabax ngir li ñuy tudde réinsertion ñi nga xam ne ñu jubandi leen ci société bi wala ñu jàdd ñu téy leen fa di leen defaraat bañ mën a delluwaat ci société bi wax nañ ne euh, cellule bu nekk cellule bu nekk am na téléphone am na frigo à bar am na sax maktab fay mën a jànge am na duus ci biir ak palanteer boo xam ne da ngay jàkkaarloog jant bi maanaam jumtuwaay yi nga xam ne doomu aadama bi yëpp dana ko soxla am na ci biir boole nag ay matawaay yuñ jël ca biir nga xam ne day am salle à manger salle de sport salle salle de musique ak yeneen yoo xam ne yëpp doomu aadama dana ko soxla ngir ngir ak dundinam ngir xam-xamam ñu def ko fa loolu mooy dëgg-dëgg réinsertion loolu mooy jubluwaayu kaso loolu moo war a nekk jubluwaayu kaso waaye warta nekk barab boo xam ne ci la toroxal doomu aadama ndax amul njariñ ndax nit ki mën naa def njuumte lu rëy a rëy waaye nga jubbanti defaraat ko ba mën a delluwaat ci société bi yaakaar naa loolu moo ëpp njariñ ci di ko gën a mettital bu defee muy gën a sori société bi nga xam ne boobaa su génnee it moom day gën a fetteerlu waaye dootu rëccu lam daan def kon yooyu lu ñu war a indiwaat la ci kaso yi barab yu baree bari yoo xam ne barabu liggéeyukaay lay doon comme ni ko tubaab yi di defee ci seen kaso yi nga xam ne daanaka boo nekkee ci biir yow kiñ tëj lenn dong ngay ñàkk muy liberté waaye da nga mën di liggéey danga nga mën di yokk sa xam-xam da nga nekk ci jàmm da nga am ay activité loolu nag bu fekkoon ne suñ kaso yi am na ci wala boog yokk nañ dooleem ba nga xam ne dañ koy yaatal ci wàllu mbay mi ak ci wàllu sàmm gi yooyu yëpp ñi nga xam ne dañ leen tëj kaso nga xam ne tëdd ko jub dong lañ fay nekk. ak di xalaat ak ak ak a buuxante ba fekkoon orienté nañ ci loolu yaakaar naa moo doon ëpp solo loolu politique la boo xam ne gouvernement bi war na koo jël te ñi fi nekk tey sax war nañ koo jël ndax bul fàtte ne ñoom ca kaso lañ jugee jëm euh, jamale ca pale kon ñooñu kenn waru lañ ci gën a taxaw ndax mos nañ as lëf ci kaso ak la fa nit dund kon mbokk yi muñ dikkaatee ak yow daanaan la may ci gént kaso ndax moom it bari na ne ko nit ñiy laaj gént dugg ci wala ñu dugal la ci wala nga gént génn ci ak yu mel noonu daan la ci may ay tàkk-tàkk ci wàllu gént waaye nag loolu ci beneen jataay lay doon incha allah kon ngay wéy dàmb na ci seen bank di ko tasaare ndax bokk na ci li ko yëkkati wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu